kenn ku nekk ci doom santam di leen ñaanal jàmm ak tawfiq kii di seen mbokk eh, Abdourahmane Youssouf Ka ñu gën koo xamee ci Youssouf Ka di imaamu ratib bu juma Sicap Mbao eh, di kenn ci mbokki jullit yi yéem a sonn tuuti ngir xam li xew ci eh, monde bi ci àdduna bi rawatina ci li ñu tuddee monde musulman muy ci réewu juliti euh, li ciy xew te bari lool te wuute lool ni muy xewee ak fa muy xewee ak lay tax mu xew yooyu daal lañ fas yéene weer wu nekk ñu am ci ak yéen ñaari jataay weer wu nekk ñu am ci ak yéen ñaari jataay ngir ñu bokk ko jàngat bokk ko càmbar boo ko xoolaat bu baax li ko waral mooy li nga xam ni mooy liñ jëlee ci ki yàlla yónni ci nun sallallahu alayhi wa alihi sallam muy wax ni man lam yahtamma bi umuril muslimin fa laysa minhum xadis boobu doonte lenn ci waroomi xam-xam yi ñu ngi koy jam waaye ala ayati xaal eh, lim ëmb moom wir na ndax boo delloo ci yeneen i xadis yi wér dellu delloo ci alquran da nga xam ni sensu xadis bi moom sikk amu ci di wax ne ku itteewu ittee jullit nekkul sa ittee amoo yëg-yëgu jullit yi doo leen bàyyi xel bokkuloo ci ñoom e, ak it bu ñu delloo ci yeneen i xadis e, muy wax ni innama masalu muslimin fi taatufihim wa takaasu wa tawaddihim wa taraxumihim kamasali jasad ishtaka min udun tadaa lahu saairul jasad bi saxri wal di wax ni jullit yi ni ñu war a mel maanaam misaalam jullit yi ci seen ak bëggante seen ak jàppoo seen ak yërëmante ñu ngi mel ni jenn jëmm jenn jëmm kat cére bari na lool am na loxo am na nopp am na bët am na bëñ am na tànk am na am na am na waaye cëram yu bari yooyu bu ca metti rek yaram yépp a koy yëg nekku ni cër ba metti dong moo ko yëg mu ni jullit yi noonu la mel wala bokk noonu lañu ñu war a mel ni jenn jëmm jooju fu benn jullit ame nattu ci kaw suuf jullit yi yépp war nañ yëg ni jullit yi am nañ nattu am nañ mettit fu jullit amee mbégte it mbaa ngëneel mbaa yiwit ci kaw suuf loola ngëneel la mbégte la yiw la ci jullit yépp kon bu ñu xoolee yooyu ribayaat delloo tam ci wax sayduna omar radiallahu anhu mu wax ni ida nashaa fi l man lam yacrif il wala boog dañ la tanqudan ura l islaami urwatan ida nachaa fi l islaami man lam yaarif il jahiliya di wax ni bu fekkee waa lislaam muy juliti dem nañ ba xàmmeetuñu liñ yor te mooy lislaam ak la dul moom mu sa su boobaa danañu gis buumi lislaam di tekkee ko benn par benn benn par benn eh, kon ku mel ni Seydil Xaaji Omar radiyallahu anhu wa rahima da daan wax ni war na ci kiy digle lu baax di tere bon mu xam li xew ci jamonoom xam li xew ci jamonoom ak na muy xewe ci niveau ba muy xewee itam mu yëkkati niveau ba mu toll foofa kon ndeke ki fas yéene digle lu baax tere bon te mooy fonction julli ci kaw suuf mooy missom ci kaw suuf ndeke kon daa war a xam jamonoom ak la fay dox yëpp moo tax waroomi xam-xam yi bind lu bare bari ci nite fiqhu fiqhul waaqi ku mel ni docteur Qaradawi ak yeneen borom xam-xam yu bare bari eh, Jaabir Alawadi rahmatullah alayhi bindoon nañ ci lu bare bari loolu buñ ko boolee rek lañ cee dégg mooy mënul ñàkk moos nu ittewoo liy dox ci jamono nu ittewoo li xew fexe dégg suñ jamono di gëstu di càmbar di saytu ba xam li xew ci sunu jamono al ustaz eh, ahmad dam ndiaye xafidahullah wa zaadahu sixatan wa aafiya day wax ni eh, ñetti mbir yi imaam mënu ko ñàkk gànnaayoo pour nga dekk imaam la ci njëkk mu ni mooy imaam day xam xam lan xam diine xam sariya ndax kat la muy liggéey yëpp ca la aju te la xew ñu laaj ko koo xam ne lu xew laajeef la ah soo xamul musiba dana am ndax rek faaw nga tontu ndax la nga nekk moo tax mu ne kon imaam daa war a xam sharia ñaare bu ni imaam dafa war a xam li xew xam li xew ci jamono xam liy dox informé wu te suy informé wu itam exactement mu informé mbiree na mu xewe lu tax mu ndax soo amul information doo xam ci liy dox dara doo ca mën a wax leen wala soo ca waxee rek wax ja leneen lay doon euh, boo ko xamee nu bokkul ak nam demee it asu boobaa boo ca dee faral di wax dana mujj jural la rek euh, euh, daanaka yëg-yëg bi nit ki ñi am ci yow ak kóolute lay déglu boo sàgganee lu ca bari mën naa wàññeeku ñetteel ba mu ne imaam daa nekk koo xam ni day sañ wax waaw bu wax waaw jotee sañ wax déet bu wax déet jotee waaye imaam bul daanaka amoo kàddu waaw amoo déet ndax dañ ni ku sëñte wax waaw sa déet amul njariñ ku sëñte wax déet it sa waaw amul njariñ mu ni ñett yi kon imaam na ko bàyyi xel imaam na xam sariya imaam nay informé ci liy xew ci àdduna tey informé na mu amee buñ ko jox ay fausse euh, information imaam itam na am doom na am doom sañ di wax waaw bu wax waa jotee sañ wax déet wax déet jotee yooyu buñ ko boolee moo waral ñu tànn kon euh, domaine bii fas yéene xuus bu baax incha allah tey dimbali ko sunu borom subhaanahu wa taala waaye itam ginnaaw loola ñu sukkandiku ci ñi nga xam ne xam nañ leen mu ne ay organe de presse yoo xam ne yu xam lañu ñu am crédibilité bu wér a wér euh, ak itam gëstukat yi ak bindkat yi ak yu mel noonu yëpp rek incha allah ñu fas yéene sukkandiku ci yooye ginnaaw ba nu wéeroo ci suñu borom subhanahu wa taala ngir mën a càmbar li xew ci monde islamique euh, lan la waaye itam luñ ca mën a jànge bu ko defee kon loolu daal mooy liñ fas yéene euh, ubbeeg yéen tàmbale ko yéen donc ñu ngi tëng fii kàddu yi ba ci beneen jataay bi di ñëw nag ñu xuus ci mbir yi dëgg-dëgg dugg ci problème yi dëgg-dëgg incha allah wa sallallahu wa ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh